jigen bu dee say ci kër tay bëgg say badi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu yeesalaat suñu jébal bu baaxa baax ci suñu yaakar ji tay ak ëlëk di cheikh ahmadou bamba khadim rasul di nuyu di ziar bu baaxa baax serigne muntaha mbake di ko ñaanal bu baax mbake mu yàgg fi lool te and ak wër waye itam non lañ ziaré serigne am mum serigne modou mbenda di ñaanal bu baax fal yaaram mu yàgg fi lool te and ak wër Euh, nuyu leen bu baax a baax ziar leen yéen euh, mbokku téléspectateurs yi waaye yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo seen émission bi di Linguère muy am alxames bu jot bu waxtu wi jotee euh, ñu ci ànd ak nag macha allah sama équipe bu ñaawul bi sama Linguère comme ni ñu koy waxee waaye dañuy wax nag balaa ñuy sori inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale bu baax a baax a baax soxna Momy Seck mi nga xamante ni moo fi bàyyi ko tey ji macha allah. di doom si Papa Thione waaye tamit di doom ci soxna Kiné Diouf Diaga ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax uh, di soxna tamit ci Bougane gay Dany uh, bu Sen TV ñu ngi ñaan bu baax a baax a baax suñu borom yërëm ko te xaare ko aljanna te ñi mu fi bàyyi suñu borom may leen xolu muñ Euh, tey ñaanal nag euh, soxna Kiné bu baax a baax a baax yàlla may ko xolu muñ xol boo xamante ni dina ko muñee doomam ji nga xam ne moom moo ko dëddu te fa mu jëm nekk noflaayam bu baax a baax soxna Marietu noonu la ñuy jaaree ma nuyu la ziar la bu baax a baax jox la sa wàccuwaay. bu baax a baax a baax di la ñuyu ni koy waxee rek ginnaaw dañ sante yàlla su du Seydina Mouhamed sang-sang yi maam borom Touba Cheikh Saliou Mbacke di sa ñaanal ma Mountakha yàgg fi loolu tëwér mm-hmm. waaye ne di ñuy sama buntu ci kër gi sëñ Makhtar Mbacke ibnu sëñ basiir Bassir ñu koy wa ni nga ko wàccee léegi say kàddu di jaale muumi bu baax a baax a baax a mm-hmm. baax naan nag waaye ndogalu suñu borom bi moom bu wàccee rek dañ koy nangu mu mm-hmm. demee nag fu mettee méttee métti ndax li ma naan dem yëpp métti waaye nag rawatina xale waaye yàlla bu cat jiitu ci biir bàmmeel yàlla na tasanteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di naka noonu nag di ñuy sama maam booy maa ngi lay ñuy bu baax di la ziar di ñuy ndey bee xeexal comme d'habitude mhm. waaye nag di ñuy suñu gan tey mhm. bu baax a baax xam naa nag gan gi damay bàyyi noonu rek nga xam naa ne buñ ko wanee Sénégal moom xam nañ ko tubaab fakàlla macha allah soxna Diarra ah muy noonu euh, soxna Mariétou ñu delloo ziar bu a baax ziar soxna nday muy noonu nday bee xeexal ziar la jox la sa wàccuwaay di la wax asalaamaaleykum dina fay di ziar téléspectateur yëpp di nuyu ñëpp di jaale soxna moom yi mi gaañu yàlla xare ko àjjana yi gën a kowe jéggal ko ay bàkkaaram metti na nag tey moom danoo nekk ci tiis vraiment meenuñu ko nag waaye xol yëpp fees waaw di ko ñaan ñu ngi ñaan nag bu baax eh, di nuyu soxna Mareetu di nuyu soxna Mbène di nuyu suñu invité bi waaw di kontaan daal dellu si beneen émission. incha allah nuy noonu bàjjen ñu delloo la nuyoo bi namoon la lool wax dëgg yàlla ah xam nga li ñuy wax ni boo boo boo ñëwul daal ñu suñuy bët day day day day day tàmbali di di ñuy toxoñoo ak defi yëf. ah mu ngi noonu namoon nañ la bàjjen ziar la jox la sa wàccuwaay. delloo ziar soxna Diarra. Mhm. Eh, moom koo nam mën a mën a wala. Mhm. moom maa leen raw lool mhm. moom namoon naa leen lool man tam. Eh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax di di la ziar. Eh, di sox sama kàddu li ngeen wax rek moom i sekk. mais ka seede rafet na. xel dal yàlla yàlla bu ko ca jiitu ci bàmmeelam. yàlla xaare ko aljana ci barke Cheikhul Khadim. sama sët bi Mareetu maa ngi lay nuyu. ziar naa la namoon naa lool yow tam. ndey maa ngi lay nuyu. di nuyu suñu invité du jour. Mhm. moom comme surprise la rek ñu bàyyi noonu. ñëpp découvrir ndoo ko. Mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan heure bi ci suñu émission Linguère. waaw macha allah mi noonu bàjjan kon euh, ci invité bi lañuy dem ndax niñ ko waxee rek xam nga. Euh, Linguère moom dafa exceptionnel tey tey moom tubaarkàlla macha allah spécial la ndax euh, comme li ñuy wax rek ni suñu chaise bi moom ku ne xam ne ni chaise u Linguère la waaye nag buñ nee Linguère faaw ñu ne dammeel nag tubaarkàlla macha allah te xam naa sax nañ ñun tey dañoo juumul nag sëñ Lamine ndax ñu nee faal dañ naan faal dammeel ah Amari Ngoone Sabel daaw faal dammeel dece fa njóogu kon nag ñun ñun juumuñu kon ah biñ andee dammeel ci plateau bi tubaarkàlla macha allah kon euh, sëñ Lamine tey daa xamal ni suñu chaise bii tey ah tey tey tey moom chaise u dammeel la tey yaa ci toog la fas yéene ànd ak ñun li nga xamante ne bii moom moo di émission bi ndax li may wax ni mbir buñ ko yëkkatee war koo waxtaane day yell ñu wooca ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu noonu ndax tey li ñu fas yéene waxtaan xam naa lottu nañ ci lool pour di ci wax loo xam ne nit ñi daañ ko dégg mm-hmm. ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi laataa ñoo ñëw ci waxtaan bi incha allah auzu mm-hmm. billahi min asheytaani rajim mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim a jërëjëfe sëriñ Touba. Mhm. jaraw la ka maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mhm. loolu nag suñ ko waxee rek mel na ni nuyoo la bi nga xam ni mooy mhm. nuyoo waa kër sëriñ Touba. ndax ñun amuñu ku dul sëriñ Touba. ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim waaye nag tàmbali ci sëñ Touba rek yem ci sëñ Touba ndax fi mooy Lamp Fall FM Lamp Fall nag ma eh, maam lañ ko tuddee muy maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax jërëjëfe Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall. macha allah kon ñoo ngi nuyoo nuyoo boobu. Mhm. yéen it leen jox seen cër di leen jox seen yéeguwaay di leen jox cër bi leen suñu borom jox. Mhm. ndax ay jigéen ngeen ay lingeer ngeen. Mhm. sunu borom moo leen njëkk jox cër jox leen daraja. Euh, dalal bi ngeen ma dalal fii nag itam nekk mbégte. nekk privilège ci man ndax yaakaar naa ni seen émission bii di lingeer. jàpp naa ni man maay première góor buñ ci mos a dalal. dafa nekk euh, émission bi nga xamante ni. Mhm. daanaka jigéen ñi kesal lañ ko lañ ko daan jagleel. Mhm. waaye comme ni ngeen ko waxee rek Linguère boo leen gis damel war na ca war a mën a topp. Mhm. derrière des grandes dames dafa war a am. devant des grandes des ah, grands ah, hommes. waaw waaw macha allah. macha allah kon ngeen jëf. Uh-huh. bala ñuy tàmbali waxtaan bi rek xam naa dañuy jox nuyoo. Uh-huh. Serigne Mountakha Mbacké. muy xalif général des Mourides. Uh-huh. ñoo ngi koy ñaanal ñun ñaan rek la mën ci moom. ndax moom moo ñu mat ñun matuñu ko sax taalibe kon ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak barke naka noonu it dañ koy ñaanalee noonu suñu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Bintu Fall bu Serigne Modou Abdoulahi Fall Ndar nuyoo boobu nag moom buñ ko nuyoo moom it ñaanal ko mu joxal ñu ko sëñ Amdi Modou Mbenda jaalal ñu ko ci sunu baay bi fi jóge muy sëñ Amdi Khady Fall mu sëñ moodu Moustapha Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. di jàmbaaru l'islam di jàmbaaru maam Cheikh Ibra di jàmbaaru Kër Sëñ Touba. di jàmbaaru ndogu yi. Mhm. kon kullu kullu kuy Baay Faal rek. Mhm. bokk ci njaboot Cheikh Ibra mhm. bokk ci njaboot sëñ tubaa ak Cheikh Ibra ñoo ngi lay jox sa wàcc wàccuwaay di la ko jaal muy sunu baay bi fi jóge démb sëñ Amdi Xadi mu maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu jógee ci lool it comme ni ngeen ko waxee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoo ngi masawu itim famille Waly Seck muy wax dëgg yàlla Waly ah. Seck en personne moom la fi bàyyam bàyyi ci góor ci li ñu mhm. xam mhm. di jaalit wéy juram mhm. soxna jaaga di suñu jigéen di suñu xarit itim ñoo ngi koy jaal ak képp ki nga xamante ni rek yaa ngi bokk ci ci ci ci Sénégal ci dëkk yi ak tiis yi fi am ak yi ñu yëg yu ñu yëgul yëpp ñoo ngi ko ñoo dugal ci jaal ci jaal ci loolu jaal nañ ñëpp yéen it nag wax dëgg yàlla bëgg nañ lool kontaan nañ ci dalal bi nga ñu dalal ñu ngi tuub di incha allah ngi noonu ci ci noonu la ñuy desandi ba dugg ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaane tey ndax maa ngi koy junj léegi tey liñ fas yéenee waxtaane soxna Mariétou faaw euh, ñu andi koo xamante ni xam-xamam daf ci màcc ngir ñu mën a wax loo xamante ni dana leer ci dopp nit ñi ñu mën koo déglu ndax liñ naan Sénégal dëkk la boo xam dafa naqaree waxee kon nag li ngay wax faaw nga andi koo xamante ni ku ci am expérience la ndax li ñuy waxtaane mooy tey takk xala takk xala nag bari façon lool ñu découvrir ci yoo xamante ni sax amaana ñun xamuñu ko ci woon ndax euh, bu ñuy wax sëñ Lamine lataa ñuy gën a xuus nag ci waxtaan wi ñu dañuy euh, bëgg a xam euh, moo bii sax lu ko andi ak luy takk xala ba pare balaa ñuy gën a mën a xuus ci waxtaan wi. Ah, jërëjëf soxna maam Bousso. Mhm. maam Diarra ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la jox sa mhm. cër. Mhm. waaw baat boobu ngeen indi tey muy thème bi nga xamante ni. comme ni ngeen ko waxee lenn lu ngeen di def lu nekk. da di seet ku xam-xamam gën a màcc ci loolu. ñëw indi ci ay leeral waaw pour wax ci wa indi ci leeral kem mhm. talaay kàttanam pour mhm. askan bi mën cee jëriñ cela ne veut pas dire que ñun ñoo xam mhm. waaw nit matul nit xamut nit mënul yàlla rek moo mën waaye daañ ci jéem a wax indi ci ay leeral suñu kem talaay kàttan te teg ko ci dëgg teg ko ci jub teg ko ci diine te teg ko ci lislaam te jiital ci yàlla ak yeneen bi euh, nga indi muy takk xala thème la bi nga xam ni ñun ñi ñëpp ba ñu juddoo fi lañ ko fekk waaw takk xala moom baat la bi nga xam ni ku ko dégg rek. Mhm. di nga am tuuti loo ci comprendre donte doo mën a comprendre baat bi ndax baat wolof la. dëgg la ndax ku dem ba wax takk. Mhm. wax xala. Mhm. xala moom ci biir wolof nit ñu bëri duñ ko comprendre. waaye baat la bi nga xam ne daal dafay tënk ci gàtt muy ñaari way dencante. bu góor wala bu jigéen. la mu soxla ci borom këram munu cee jot wala munu cee am. dëgg la maanaam ku góor ki dafa impuissant dafa tële. ku góor ki dafa. dafa dafa tënk. ci gàttal ci wax muy gën a rafet dans ce premier temps mooy ku tënk. mooy góor bi nga xam ni. ci xalam yi nga xamee. tey dañ la may ab soxna. ak góor ñu may la ab soxna. jour bi ñu la joxee soxna si. nga war a ànd ak soxna si. mënoo ci dara. kon baatu tële boobu. moom loolu la njëkk ñëwee. dëgg la foofu la njëkk ñëwee. waaye tële nag ak xala boobu ñuy wax. dafa am ñaar. dafa am tële bi nga xam te ni c'est artisanal moy mhm. bi ñepp xamam bu traditionnel moy mhm. comme li wax ñu may la soxna mhm. mënu lo ci dara waye nak léegi télé yi ñu gis fi ak xala yi ñu gis fi da nga gis magum jëm bu dem ba am 40 ans wala 35 ans am borom kërëm ñu takk jëkkër ci xala ñu tollu ay weer wala ay at te kon ñaari mbir la benn bi dafa traditionnel bi ci dess nak dafa artificiel bu artificiel bi nak moy bi ñuy wax léegi magum jëm dem mun ba mënatul tak ko xala loolu lu am la mais bi ñu xamoon nag ni ñëpp xam ko. xala normal. warta weesu une semaine deux semaines ba un mois. xala mooy xala. waaye léegi nag xala bi li tax mu dangereux. mooy dafa bari léegi yi ci laxasu. dëgg la laxasu boobu nag moom mooy li gën a sonal nit ñi ak li gën a jaaxal. réew mi yëpp koo wax. mu am soxna mënatul boo ko xam moom lañ la takk xala. dëgg la. kon baatu xala boobu looloo tax léegi jamono ji bari. xala boobu nag lu am la. lu sonal nit ñi la te. mbir yu bari def ci laxasu te loolu moo fii suñu toogaay ah. te li ci laxasu yëpp danañ ko incha allahu rabbi mun ko leeral ci kàttanu yàlla dinañ ko leeral bu soobee yàlla mu am lum junj léegi laataa ñu dem soxna Mariétou ndax li ma li ma jotagum dégg mooy borom kër bu ñu may soxnaam du ci mën dara wala yooyu noonu ndax itam léeg-léeg du dal soxna ñu may ko boroom këram boroom këram tam soxna si tamit du am envie wu euh, soxla borom këram waaw euh, comme bu dee ci lu bees ab mhm. jànq jigéen bi xam te ne exemple jël nañ ko am vingt ans musul xam góor musul xam sëy bis ñëw ñu may ko borom kër. Mhm. automatiquement fi ñu ko mayee borom kër rek. Mhm. borom këram war a ànd ak moom. Mhm. comme ni ñu ko xamee. loolu suñu aada bokk suñu culture la bokk. l'islam moo ko jàngale. te moo ko daganal. jigéen moo ko bëgg. loolu l'islam moo ñu ko njëkk sant moo ñu ko jàngal. lu jaadu la. tey xale bu jigéen boobu itam yenn saa yi ku góor ki dana nekk ku normal. bëgg utiliser soxnaam mais soxnaam du mën a dem. bu boobaa suñ ko seetee dañuy wax ci yéen sax ni ngeen ko gën a xamee. Mhm. dañ ko war a daggal ay soccat. Mhm. kon kooku tële na. ndax dafa mhm. war a dem mais demul. dëgg la kon kooku tële am na dañ ko war a daggal ay soccat. dëgg la am na ci ñi nga xamante itim dañ leen a fat mhm. ni ñu koy jàngalee ni ñu ko mhm. mën a xamee ndax ci mhm. jàngale la ñu nekk ndax loolu yëpp suñu aada lañ bokk ndax ay sénégalais lañu dañu am aada am culture dëgg la te loolu suñuy culture la waaye lépp loo gis ci àddina rek am na lu ko waral ndax ñi am soccat yenn ñi feebar la am na ñi xam te ne itam nekkul feebar lu ñu def la def def la am na ci ñi xam te itam comme nañ niñ la ko mën a leeralee bu dee ci jigéen wax naa tuuti ci góor. Mhm. mais bu dee ci jigéen tey am na ci jigéen ñi xam ne dañ leen fat. Mhm. seen ay wëjur. Mhm. dañuy bañ ba ñu amee 12 ans dañ leen di fat. dëgg la dañuy mel ne bañ leen dañ leen di jongal. dëgg jigéen ñu bëri bu ñu leen jongalee. dañ leen di fat. bu ko defee diiru lu ñu nekk jànq. âge puberté bi benn góor du mën a egg ci ñoom. ci ñoom. buñ la fattee nag góor mënul egg ci yow. mooy kaaw viol li ngay gis léegi. dëgg la. ak xale yi foo bi ñuy teel a foo ak mhm. ëmb yi ñuy teel a ëmb mhm. ak yàqu bi ñuy teel a yàqu mhm. avant mariage léegi nag mag ñi buñ daan bañ loolu ci la ñu teel a prévenir bu jongal xale bu jigéen bi ba pare fatt ko bu ko defee kenn du mën a yegg ci moom léegi kooku boo ko mayee te dindi woo fatt fatt boobu nit mënul egg ci kaw góor loo bari doole bëri kàttan bëri kàttan du doo mën a egg ci moom te loolu itim aada la ak culture la li mhm. xam te ne sunu fii ci Sénégal lu fi mhm. am la mhm. lu fi amoon la waaw macha allah mu ngi noonu soxna Mariétu euh, sëñ Lamine ngi noonu xam naa incha allah dañuy dañuy dañuy gën a wéyal ci waxtaan wi ndax booy booy xool euh, lii dafa doon loo xamante ni dafa dafa bëri jamono ji ndaxte xëyuñu xëy rek ñëw ne nañ waxtaane li nga xamante ni moom moo di takk xalame dafa doon loo xam ne nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo koy jooytu ndax boo boo bu waxee ci côté bu góor bi ba pare dinañ ñëw tamit ci côté jigéen bi ndax amaana ñun lañ ci xamoon mooy ci côté ku góor ki jàpp jàpp ñu woon sax ne xëy na euh, jigéen dina doon koo xamante ne ku ñuy ku ñuy takk xala lay doon mais jamono ji léegi moo soppeeku te wax na ne takk xala nekkul takk xala yi mais li nga xam ne moom mooy lëmasu waale ci biir takk xala boobu soxna soxna Mariétou mhm. parce que thème boo fi indi la daf fekk loo xam ne société bi ñu ngi koy dundu moment bi mhm. te société bi ñu ngi koy dundee metti na trop mhm. am ñoo xam ne ñu ngi seen biir néegu sëy yi te mënuñu koo waxtaane mënuñu koo wax ak ma demb mënuñu koo wax ak ma ma yaasin hmm. kon bu ñu toogee wax leen ko xam nga ñu toog xam koo xam ne nii buñ paree mën nañ koo laaj gisi numéro kooku mën nañu dem ci moom directement ci sutura moo tax li may wax naan uh, di wut koo xam ne ni dalaa gën a xam mbir mi hmm. di ci toog koo xam ne ni bu paree buñ fëggee buntam dina leen si mën a jàppale bu baax it hmm. daf ciy baax bu baax a baax. Mm-hmm. xam nga li may wax takk xale dafa bëri façon. Mm-hmm. ñun bi ñu nekkee xale dañ ko daan dégg. Mm-hmm. ñu naan diwkat dañ ko takk xala. diwkat ñii te dañ daan jàpp ni takk xale yi wujj yi ñoo ko daan defante ni nga xam ne ñooy sëy ci biir kër gi. ñoom ñooy takkante xalaat waaye wala wala wala ku la bëggoon takk takku la wala ku la bëggoon takk takk la wala <laughs> ku jigéen ki mënoon naa am ku góor ko may seeti keneen takk la mu ne xaaral kii maa ko gën a saay saay xaaral ma def ko ni mhm. mais ñuy dox àdduna di dox di dox di dox di dox sëñ lamin xam naa dina si tasanteeg yu mel noonu mhm. ñu dem ba nga xam ne nii ki nekk ci biir kër gi mhm. moom day takk xala boroom këram tourné ko ci moom pour ñu mën koo jiin ñeneen ñi ñeneen ñi mm-hmm. te fekk na moom moo koy def waa mi ci société bi mm-hmm. fekk na moom moo koy def boppam mm-hmm. ñu siy gis façon yu bëri yoo xam ne daan ci dégg maam yi daan am lu ñuy wax naan takk xalaam bi de ci koog lañ ko def takk xalaam bi suufu ndaa lañ ko def nga gis koo xam ne danaan la sama congélateur bu ko kenn laal fekk am na lum ca def mm-hmm. xam nga nag kon ki nga xam ne nii day jóg pour def lu bon loolu mm-hmm. foo ko gisee rek war na am koo xam ne nii buñ fa demee mën na leen a dimbali dindi ko parce que mi ngi tas kër yi sëñ Bara mm-hmm. waaw soxna Mariétou macha allah ti ma jàngatee waxam mooy li nga xam ne noonu la ko sénégalais dëgg la dama ci ñëw ci ñaari anam anam bi ci njëkk mooy ñaari jeeg yi sëy da ngay gis ñaari jeeg yi sëy bokk benn borom kër waaye ku góor ki. Mhm. su ayee ci awo bi. Mhm. dina mën dara. Mhm. waaye saa bu demee ci ñaareel bi du mën dara. te fekk ni ku góor ki dafa ngemboo glace. moom la ñuy wax ku ngemboo glace. ku ngemboo glace mooy ki xamante ni. dafa yoom dëgg la mbir yi daal du xumb. du dex normal. heure bu ayee ci ñaareel bi du dem. heure bu demee ci awo bi mu dem normal. te mënoon na nekk itim. bu demee ci ñetteel wala mu nekk si ñeenteel parce que famille polygame la ñu nekk. am na mhm. góor ñeent. Mhm. am na ci ñi nga xamante ni am nañu sax juróom wala ñu ëppal ko. Mhm. te itim ay kilifa lañ. te yàlla xam na ci seen ay soxna kenn rek lañ ciy mën a sëyal normal ak a ci réew mi. bari na kër kilifa yooyu gis fii ci réew mi. xëy na sax ñu may setaan. am nañu lu ëpp juróomi soxna wala juróom-ñaar kenn kese lañ ci sëyal normal. te ñoom dañuy ñëw ba ci ñun duñu ko wax wala seeni soxna ñëw ba ci ñun di ko faju si wala di ko wax day day doon def day nekk def def léegi góor gu nekk nag da war a mën a yeewu bu fekkee danga am ay soxna. Mhm. yow boo amee ayee ci a ci ci aawa bi mën boo demee ci ñaareel bi doo mën war nga xoolaat sa bopp. Mhm. am na ci kenn ku ci mus a ñëw ba mu ñëwee dama ne ko demal nga ubbi sa congélateur nga fi ubbi ko ndekete mhm. congélateur am kenn du ko mus a dégivrer. ndax gis nga takk xalaat bu ñu koy def ci jën lañ koy def ci jën. liggéey boobu ci jën nga koy def def ko ci congélateur def ko muy sedd. gis nga tànk waa ji mu ngi fuy sedd su waa ji ayee ci yow nga dégivrer. su waa ji génnee nga congé la kon dara day sedd xam nga góor bëggul dara luy sedd déedéet fa muy tàngee waru fa sedde hmm. kon nag mbir yi foofu la li xala foo lañ koy gis ñu koy def liggéey lay nekk hmm. xaatim lay nekk oh. fas lay nekk ay tegtal lay doon hmm. bari na nag ci ay anam am na xeet yu koy def ci Sénégal ndax dootul dëkk yi wala xeet yi am na dëkk yoo xamante ni wala xeet bi nga xamante ni ñi may xam nañ ko ñoom loolu rek la ñu mën ah, waaw kon lolu nek na lu doy war wallahi kon lolu moy xala mhm. amna ci ñi nga xamante ñu bari mhm. ay jek lañu dañuy wujje ëpp na attaque ni mhm. seen jëkkeer mënul ci ñom dara te pourtant bu démé fenen dana mën te bu démé fenen day mën mais bu ayé ci yow du mësa mën te lolu ak la waaye tam bi marié tu wax des fois nga jël ko man man man ma jël ko man fétalé ko sama bop bu ñëw ci man du mën dara fekk man ma liggé xala bobu ngir ñu né ah marié tu dé mom momako def wala nangam wa xam nga jigen mom dafa bari pexe jigen yalla moko bind jigéen yàlla moo ko bind. ci mhm. pexe. Mhm. mais ñoom amul lu ñu jigéen ñi amul lu ñu dul def. am na ci xale bi nga xamante ni sax ñoo ngi koy def. Mhm. comme ni mu ko waxee ci ndaal lañ koy def ci suufu ndaal mais loolu sax xewi na léegi ndax xala ci liggéey da koy def fuy tooy mhm. wala nga def ko ci suufu ndaal mhm. mais xam nga léegi ndaal moom bëreetul ñu koy congelé ba wow la am ak ay frigo mhm. baa jigéen ñi di leen jënd ndaa def ko seen ruq yi ah, ah, ah, <laughs> waaye waaye sëñ Lamine nañ fi bu ñu ñun lu xool luñ ndaa ndaa rek bu ñëwee nga nga nga tas leen waaw kay dana waar am na ci xam te ne sax léegi ci glacière yi la ñuy jënd eh, eh. waa ji bu fekkee ki nga bëgg takk xala mhm. dangay ngay def sa glacière sa suuf la rek ñu defal la liggéey bi defal la xaatim bi soo amee glacière tëmbal ci biir am na ci liggéey xala bi nga xamante di ñoo ngi koy wax euh, si sagaru tayu lañ koy def ah. sagaru tayu mhm. ci lañ koy def mhm. am ñoo xam ci seen musóor lañ koy def ah. am ñoo xam ci seen sër lañ koy def am ñoo xam dañuy xotti seen yére am na xala yi xam ne ci sa daal lañ koy def mais xala bu njëkk dëgg dëgg di tax ñuy wax xalaat dëgg buñ ko daan def ci xobi guro lañ ko daan def ak ci doomi guro bi. muy takk gi muy takk gi. wala mm-hmm. ci buum boo jëndee nii guro xam nga koy àmbale. waaw jaaykatu guro yi. Mm-hmm. am na buum buñ koy lëmasi ak kii. Mm-hmm. loolu yëpp lu ci lu ci laal rek ci jouru mariage bi rek ku góor ki mën nañ ko ci yàq. Oh. wala ku jigéen ki mën nañ ko ci yàq. soxna bari na ñu ñu yàq ci seen sëy mm-hmm. te seen seen takku seen guro takk lañ leen yàqee mm-hmm. wala ci xobu guro bi wala ci doomu guro bi wala ci buum bi mm-hmm. kon ne loolu nekk na li nga xamante ni itam lu ñu seetlu la te lu fi bari la incha allah soxna Mbène sëñ Lamine a ngi noonu xanaa joomeeti nañ leen joomeeti nañ <laughs> tax émission bi am am solo xam naa man xel mi ma ci am ñu bari am nañ ko ci parce que d'habitude ñu ba dañ wax ne xala amul xam comme par exemple ñu jox la sa borom kër mu bees. Mhm. ñu ba dañu wax bu nee dañoo ko dañ koo takk xala ñu ne noonu dañ leen stress la waaw mhm. ñu ba doon ñu koon gëm. Mhm. dañu ne stress bi. moo tax eh, kiyul affaire bi jàllul. moo tax mais doon xala. donc comme nii mu ko leeral nii dina tax ñu bari. xam ne eh, réellement. xala am na. mais tamit euh, sëñ Lamine comme ñu ngi ko doon waxee sànq. bu njëkk ba dañ doon wax ne xala kon peut-être ji góor kese la. te ndeket yëpp xala aussi dañuy takk xale jigéen té mhm. lool lépp entre ñun jigéen ñu ko waxee chaque jour femme yaq femme ñu ñokoy koy defante légui naka ngay xamé jigéen buñu tak xala wa jigéen buñu tak xala mhm. euh soxna ci cuun mhm, ñoo ngi koy xamé ci jigéen bi nga xamni dafa am borom kër waaye sa bu borom kërëm ayé ci mom day xëpp deret day xëpp rek dér heure bu ji ayé rek day gis règle ndax ñu lu ñu xam mooy jigéen da koy jox ñaari fan hmm. jox sa aawa ñaari fan jox sa ñaari ñaari fan hmm. bu demee ñett dem ñeent mooy loolu hmm. mais dañu gis ci jigéen kooku moom at bi lëmm at bi lëm deux mille vingt trois ba mu deux mille vingt deux ba oh. deux mille trois am na ñu koy dund am na ñu may setaan ñu bëri ah sëñ bi laay moo tax muy doy kooku kooku xalala ndax kooku tële am na kan suñu diine suñu lislaam suñu alxuraan gi ñu jàng ñu xam may ñu fenn fu jigéen di gisee règle ngay ànd ak moom ci sëy ndax lolou day jur febar day jur infection day jur ay dawmi jàngoro. day jur leneen ak leneen sax. lu bari bari bëri di koy jur. kon motax amna am góor ñi xamanteni amnañ soxna. waaye sa buñu ay ci seen soxna. ci seen soxna soxna soosu di xep deret. lolou xala la loolu liggéey la. moy li wax léegi. liggey la buñu def ci armer liggey la buñu def ci mbalit. amna ci jigen bi xamanteni tim tak nañ ko xala ci benen angle. koku dafa am xet. ndax amna jigen ñi xamanteni dañu am odeur vaginale. sëñ Lamine sëñ Lamine nag looloo sonal a ñi taxaw ci bu baax sëñ Lamine na ñu xam te dañoo set dañoo mañaak dañoo set dañu bëgg dañu bëgg jigéen bu propre dañu bëgg jigéen bu set mhm. bëgguñu jigéen ñi lay approché nii rek wala ñu mhm. aye ci yow rek mhm. di sentir ay xet loolu sax bëgg ko bëgg ko te jigéen ji day ba mu baax voilà te dañuy jooy dafa yàq seen àddina mais jigéen bi xamante ni heure bu ko jëkkëram jegee jëkkëram xam nga lu muy ressentir ci moom butitu jën xetu métti loolu lu ko gën a metti nga am sa borom kër ngeen di sëy pendant des années mënu leen sax ànd mënu leen sax ànd ci sëy sa jëkkër heure bu la jegee day am xet bu muy sentir xet bu bon mm-hmm. te loolu ay tegtal la li nga xamante ni sunu mbokk sëriñ si ñoo ko jàng ndax xam nga sëriñ moom jubadi la ñuy njëkk jàng mhm. dañuy jàng lëjal ba pare doog am jàng làqarti sëriñ boo gis si àddina <laughs> lëjal la jàng bala muy jàng làqarti day jàng lëjal ba pare te ne neewuñu lëjal la gën a gën a gën a gaaw làqarti yàq moo gën a <laughs> gaaw mais defar moo gën a jafe ndeysaan te ñii ñëpp ñi nga xamante ni mm. lu ñu dund la ci biir askan bi lu ñu dund la ci biir Sénégal ah. xam nga soxna maam jaare loolu doy na waar nga am jëkkër heure bu ayee ci yow muy sentir ay xet bu bon sa jëkkër heure bu ayee ci yow muy sentir ngay am deret mu ñu dëddale leen liggéey leen te liggéey yooyu liggéey yu bon la. ci mm-hmm. ay dëddale karawu xaj ak muus lay doon liggéey yu garaaw lay doon. Mm-hmm. moo tax jigéen ñi nga xamante dañuy xotti seen i sër. Mm-hmm. di xotti seen kol di xotti seen i kaala. di xotti seen ay njiitlaay. loolu jigéen bu nekk war nga ko éviter wala war nga ko moytu. ndax gars yi dañuy jël ay liggéey yu bon di ko def di def ay dëddale. Mhm. te loolu yëpp wujj gu bare gi moo ko waral. wujje ak soxorante ñeenante lu ñàkk mhm. yéenante jàmm mhm. ëmbalante wu yiw. bareetul ci dëkk bi. xeex bi bare na de maam bu sow. yow wax na loolu waaye balaa ñuy dem ci xeet gi ba tey euh, soxna Mariétu ndax euh, ñun li ñuy euh, dund kooku gay xëy na amul borom kër xam nga li ñu daan xam ci dëddale mooy ñu bokk borom kër wala comme li nga wax léegi nit ku xëy na dem jël coro jàmbur jël ko wala yooyu nga dëddaat la ko mais ki nga xamante ne moom ci labat dong la toll moom moom li mu sentir mooy loolu hmm. moom tamit ku ku mu am rek kooku dafay dem hmm. te du xam lan moo ko lan moo ko yóbbu te hmm. comme li nga wax xet moo ko yóbbu kooku moom tam kan moo ko war a def loolu sëñ sëñ Lamine waaw xam nga xam moom ci ci wut rek la tool amagul sax boroom kër bay wujjee waaw xam nga jigéen ñi moom en général du ñu am benn nit ku leen di bëgg dëgg ñoom bu ñuy am benn liste bu mag la ñuy am <laughs> jigéenu Sénégal gii c'est rare léegi ngay góor di doxaan jigéen yow kese yaa ci nekk de. góor bu ko fi foogee. ah sëñ Lamine nag bàyyi yooyu nag sëñ ah, Lamine nag nañ ko waxtaanee rek. <laughs> ko waxtaanee. nañ ko waxtaanee xam nga li ci dëkk bi sëñ ñi dafa <laughs> uh-huh, uh-huh. xam nañ ko bu uh-huh, baax. góor ñi ñoo la gën a xam ni. jigéen bu ñuy nekk di ko wut am na seen yeneen mais dëgg la sax. jamaale waaw mais booy dem di wut soxna. góor bi xam ne yow jigéen bi yow rek yaa ko bëgg yow kooku baaxul. déedéet baaxul moom <laughs> waaw gu jigéen. Mhm. nga koy wut yow rek yow yaa ko bëgg. Mhm. kon xalaatal sa bopp ndax ku fi ñëpp bàyyi lu ko nit di doyee. dëgg la dëgg la. ku fi ñëpp ba. Mhm. man de jigéen bu fi ñëpp ba man soxlaaw ma la. dëgg la waaw man damay xool ku ñëpp bëgg ma bëgg. nga topp ja waaw ma <laughs> wane sama bopp ba ñu bëgg ma ma nit. Ah. waaw loolay fu la ah, am na ah, waaw dëgg la de. léegi nag la problème en se trouve que. Uh-huh. xale yi jigéen yi dañuy am benn liste de douze. copains dëgg la. mbaraan gi dafa bari. léegi am na ci góor ñoo xam dañ leen a lekkal lekkal lekkal lekk lekk lekk. gëmal ko yaa fi nekk mu fay la jàng. investir ci yow lu dul jeex. kooku itim jékki-jékki benn sàmba Ndiaye takk na. Ah. xadi jatu ah du ko nangu. dëgg la du ko nangu. kooku itam dafay dem dugg ci àll bi. Mhm. wala seeti ku mel ne sëñ Baara Fall. ah ah ëpp na sëñ Baara kay du ko defal boobu moom waaw. ah sëñ Baara nee naa la sëriñ moom day jàng. làq la la bi moom doo <laughs> daal su demee demee ci Momar bu ko Momar defalee loolu mu ñëw ci sëñ Baara sëñ ko waaw dañuy jàng rek xam nga kuy jàng moom. Uh-huh. dafa mel ne tey journaliste. bi jàng. Mm-hmm. bu nekkee CESTI exemple. Mm-hmm. moom dina jàng nan la ñuy defaree image yu nit. Mm-hmm. mais dafa jàng it nan la ñuy détruire image yu nit. te pourtant professeur bi loolu la koy jàngal dëgg la waaw la. Mhm. kon loolu la rek ñun moom dañuy xam lépp sëriñ si moom. Mhm. lépp la ñuy xam mais yàlla nañu yàlla xiir ci def lu baax. amiin yaa rabbi ba képp ku am jafe-jafe yu ni mel. Mhm. suñu borom may ñu doole. may objectif moom foofu la taxaw. mais amuñu yéeni mukk sama liggéey bii man. ñaanuma yàlla di ci def lu bon. ba may jàng nag jàng naa lu bari. waaye yu bari moom dama koo jël rek teg nee. dëgg ko lakkuma ko nag. waaye teg naa ko nële waaw <laughs> waaw. ANCAR xeex man ko ANCAR wu yaayoo ba xër soxna Ndeye Diop sëñ Lamine a ngi nooru kon. waaw soxna soxna mbir mi doy waar. ndax am naa ne lenn li bu ko nit di def ñeme yàlla. ak bon parce que nit ku normal ma dama ne nit ku normal du dox ci yooyu. dem di yàq sa moromu jigéen. walla jël góor di yàq jigéen. lan moo ko fi jaar. lan. parce que mais li li sëñ bi wax sëñ Fall wax tamit. Mhm. daf am na solo trop. parce que mhm. jigéen boo xam ne yaa ngi boole fukki góor ak juróom. Mhm. ku ne di def ci yow. ah du raison de. mais tamit xol bu jeex. xëy dëgg la ah dañuy fay poussé nit mu def lu bon. mais daal man li ma mën a wax mooy. li ci ëpp daal mooy yàqante gi. dëgg la jigéen di yàq. jigéen di yàq moroomi jigéen jigéenam. góor di yàq jigéen. te loolu gisuma lu ko jaar ci aduna may laaj nak seigne Fall nak mom mm-hmm. seigne Lamine mm-hmm. ndax mom am na ci euh, am nga ci safara mm-hmm. budé mën nga ko fajj wala am nga ci tektal yo xamné ding ko mën wax ba nit ñi mën ko jëfëndiko koku dina doon am dina dimbalé ñu bëré waaw xam nga euh, problème yu mel nonu en général docteur ak serigne yam mais li ngeen wax muy temu xala loolu docteur mënu ci dara ci sama xam-xam boobu docteur nag dina faj télé docteur dina faj impuissance docteur dina faj éjaculation et tout mais kii xamante ni moom boo nekkee ci soxna si mën bu demee ci soxna see mënut kooku docteur moom boo ko demee wax la dafa naan la loolu moom dépassé na sama domaine de compétence dëgg la nañ waxante dëgg rek. Mhm. ndax loolu nekk lu logique parce que docteur ci lu logique lay dox. wala mu ne la non non loolu c'est psychologie ah boo demee foofu del xoolaat noo koy kiiwee nga demaat rek yëf yee ñëwaat. waaw ba tey itim am na ci ñi xamante ni nag seen impuissance. Mhm. wala seen tële googu ñu am. Mhm. ci seen i soxna. problème bi c'est psychologique. ndax tey jii bu fekkee da nga am soxna si nga xamante ni. dangeen am fu ngeen mus a jaar ci jote mu xas la. mu wax la benn wax bi nga xam ni. daf lay marqué kooku da nga damm cëru ko góor gi. daf lay suur organise organam daf lay rejeté. ay gis nga góor ay sidit la rek. dafa mel ne ñun ñii ci ñun exemple. gis nga toilette bu salte am na ci jigéen ñi xam te ne lu ñu saf saw saf saw ah, bu ñu duggoon ci toilette bu salte dootuñu demati. seen saw boobu dana aju ba suba. Mm-hmm. am na ci góor ñu mel noonu. Mm-hmm. am na wax boo leen di wax. Mm-hmm. am na xas boo leen di xas. wala am na tontu booy tontu góor. cëram damm na ci yow. moo tax jigéen naxante rek ko jur jigéen day nooy. nga naan dañ ma liggéey fekkee liggéeyu dafa am loo xas sa jëkkër wala dafa am loo ko wax wala am foo leen jaar. Mhm. wala nga am matadi. Mhm. boo mus a def ci sa àddina. ba sa mhm. jëkkër teg ci bëtam. wala nga am matadi boo mus a def matadi mooy exemple. jigéen buy am jëkkër. di lambi soo góor ba sa jëkkër am lum ci dégg wala am lum ci gis. seexlu na la. seexlu na la. te ñu bëri ci sëy yi léegi dañu xamul ni loolu. Mhm. dafa nekk ay act ay facteurs yi nga xamante ni. Mhm. dafa yàq kër yi. Mhm. góor mi ngi ànd ak jigéen bàyyi ko ci kóllëre di ko jox ay ayam di fa ñëw mais xoola xolam nekkatul ci moom. ak yàq sa jëkkër. kooku góor boo ko def. dan la warmaal rek di ñëw di tëdd ak aye di dem mais xoola dafay jaamu yàlla rek mais yëgatul dara dara la yëgatul dootul sentir dara ci yow te noonu mu amee ci góor it noonu la amee ci jigéen. am na ci góor ñi xam te ne am nañ fi seen jabar. di wër di doxaan hmm. di wër di def ñàkk fayda hmm. wala di wax li ëpp ba seen jabar suur leen am na ci soxna si li nga xamante ni wax nga ko hmm. léegi am na ci jigéen ñoo xamante nañu frigide yëgatuñu góor dëgg la amatuñu dara lu ñuy yëg wala lu ñuy sentir ci góor dara dara sentiratuñu góor yéen ñi ñëpp am na ci jigéen bu musa waxtaan ak yéen ni leen sama jëkkër yëgatuma dara ci moom yëgatuma dara ci moom xam nga lu ko indi déception femmes yooyu dañu am déception. Mhm. dañu am naqar. Mhm. dañu am lu leen mett ci seen biir biiri xol. waaw sëñ Lamine yow ñooñu ñooy def ak ñoom. waaw xam nga àddina moom lépp loo gis. Mhm. mooy li ma doon waxtaan sànq rek. loolu yëpp man yii ngeen di gis may def yëpp man damay def consultation. il faut nit ki pour nga mën ko faj il faut nga consulter ko. Je ma docteur day faj Serigne faj mais Yalla il faut nga consultation mhm. nga poser diagnostic bi déglu malade bi mhm. mu expliquer la lan moy réellement problème am am jigéen ñoo frigide comme ni ko leur ñu banex. mais so waxtaan ak ñom li lañ lay wax Li lañ lay wax man sama lutax nga expliquer la ay problème mhm. wala mu expliquer la dama ko ak jigéen ba ko ak jigéen nak ba suñu joon Yalla tay dara ci mom. japp. Amna ci jigéen ñi as xamuñu lu taq xamuñu lu tilim ñu ko xasee ba gis seexlu nañ la ñu la xasee ba seexlu seen organisme daf lay rejeté dootuñu mën dara ci yow <laughs> noonu mu amee ci góor noonu la amee ci jigéen <laughs> bu boobaa nag ñun am nañu ay pexe wala ay solution bu dee góor <laughs> xam nañu fan la ñu mën a jaar ak yow encadré la ñaanal la faj la ba loolu mën a rek yàlla xam ne dañ koy def ci lu bari couple yu bari sauvé nañ ko ci loolu waaw ah, couple yu bari sauvé nañ ko ku wax ku wax sëñ Lamine wax ko ci ci ci ci ci boole ay ah. ay ay ay ay ay couple macha allah. mu mm. ngi noonu surtout surtout nag jeune jeune jeune couple yi ñoom tamit war nañ ñëw jege si euh, sëñ Lamine bu baax ah mu ngi noonu bàyyi mooma dinaa la yebal sëñ Lamine bu soobee yàlla mm-hmm. da koy gën a jege mu lay gën a euh, delloo si waat ak tam di la jox ay ay ay mbir yu baax daal ndax mm-hmm. euh, comme li ñuy wax rek sëñ Lamine mm-hmm. am na ci yoo xamante ne nag ñun suñu su su xëy na suñu wax du àgg foofu mais am na yoo xam ne yow xëy na xam nga ko bu baax a baax a baax ci mbirum xala bi Wah li nga xamante ni moom lañ ci xam. Mhm. mooy li ci ñëpp di dégg rek. ndax ñun cabinet lañ yor. Mhm. maladie à tout moment ñooy faral di ñëw. Mhm. di ñu wax. sama jëkkër lii. sama soxna lii. ndax loolu mooy problème bi. góor ñu bëri dañu am problème. ci seen biir néegu sëy. Sénégal gii ñuy gis. mën nañu wax soixante quinze ci góor ñi. dañu am problème mu néew kattan ak problème mu sëy. quinze pour cent laa wax de. ñi am jabar ak ñi amul jabar da ngay gis léegi xale bu góor bu ndaw amagul soxna sax ñëw ni dama tële. ñëw ni dama tële. ndax xam nga léegi xale yi. li ñuy teel a fowe sëy dafa dafa teel. dëgg la maanaam léegi xale yi dañuy fowe sëy lu bari. léegi dañu teel a xam sexualité. muy benn ñaareelu mbir ba li ñuy mballu. di fowe seen bopp. dafa bari. moo tax ñi ci bëri dañuy am ay faiblesse sexuelle. wala ñu am problème mu éjaculation précoce. Mhm. wala ñu am problème mu néew kattan. Mhm. dañuy am soxna tey xale yi xale bu góor bu am vingt cinq ans. Ah. ñu may ko soxna du ci mën dara. te kenn du ko takk xalaat da lay wax ni man kenn xalaw ma kenn defuma dara. Ah. mais mënuma ci dara. Hmm. xam nga loolu itam soxna maam jaar loolu doy na waar. waaw ah, foofu foofu nag di nga ko fa xàmmee xala bi. ak ak ki ñu tokkul xala. waaw ndax kooku da ngay xam ni nga boo defee consultation daf lay wax ni man dama daan fowee sama bopp. dama daan mballu mhm. xam nga mballu moom baatu wolof la maanaam kii xamante ni ci tubaab muy kuy fooye boppam mhm. te loolu itam tem la bu ñu dund góor ñi dañuy fooye seen bopp lu bari jigéen ñi itam dañuy fooye seen bopp lu bari jigéen ñu bëri dañuy fawee seen bopp dem ba duñ soxla góor dem ba duñ soxla góor mhm. te kuy fawee sa bopp ci jigéen mooy jur lesbienne yi ngay gis léegi lu bari lu bëri ci ñoom looloo koy indi góor itam booy fawee sa bopp it lu bëri day dem ba buñ la mayee soxna dootoo ci mën dara da ngay mhm. te da ngay yoom te feeb te loolu nag pour nga fajaat ko pour nga réparer ko dafay laaj faj bu sérieux lay laaj mhm. ñi dañ hôpital moo leen gën a jublu ñenn ñi ñu mel ne sëñ Bara Fall moo leen jublu mhm. boobaa itam day laaj faj bi nga xam te ni faj bu sérieux dafay laaj consultation ñu consulter la xool ba xam lan la ak naka la ak fan la ñuy mën a jaar fajal la loolu ba mu dañ ñu ci bëri dañuy am faiblesse comme ni ma ko waxee ak éjaculation bi am na ñoo xamante ni ñoom seen mbir dafa gaaw. Hmm. maanaam bu ñu amee seen soxna mbilim mbàcc rek pirip bip la ñu am. Hmm. du pirip bip. Hmm. dañuy gaaw seen affaire seen affaire daal moom mooy loolu. te loolu itam loolu yoom la. waaw yoom la moom. yoom la te itam nañu xool itam ñi ci ëpp ci ñoom it Sénégal nañu xool lekk bi. ni ñuy lekkee. ndax léegi bion yi ñu utiliser dafa bari. Sénégal li ñu utiliser si bouillon dafa bari motax suñu ñi ci ëpp ci ñun Sénégal. Mhm. ah nañu xolaat suñu bop ñi ci am góor gu normal wul de. wul de. Mhm. ñi ci ëpp dañu am jafé jafé mhm. ndax bouillon yu ñu utiliser légui dafa bari ta mami ak di togg. dañ togg xorom. togg ay épices. ak stress bi tamit seigne Lamine. ndax ki nga xamné ni dara jot ko. tak ko xala waye dafa am lo xamné dañ koy sétane mu koy té muy ndoxum city mhm. mu doon lu graw nga mhm. gis goor ño xamné dañ koy am mhm. te dégg nañu dañuy demit bam japp seen lool ndoxu city, mën na indi lool señ Wow, waaw dafa am feebar yi nga xamante lu melni ndoxum city mom moy ndayu feebar yi ndax tay li ñuy waxtaanee mu jëm ci télé ak goor ñi dañu am jafe-jafe ci seeni soxna mënu ñu sey am ñam dañu am ay feebar normal lu melni ne ndoxum city bép goor bu ko am pour nga and ak sa soxna nga sey normal da jafe am na ñi xam dañu am feebar yox prostate ndax feebaru prostate ñëpp xam nañu feebar boobu bu dal jigéen góor lay dal. Mhm. mooy góor ñi ngeen di faral di gis ñu defal leen mbuusu saw fii ci seen poos loolu itim feebar la bi nga xamante ni itim loolu ko indi ay infection la. infection yu góor di am la xëy na beneen émission daañu ci gën a yaatal. Mhm. am na ci feebar yi xam te ni ay mag lañ am nañu cinquante ans cinquante quelques anne mhm. am nañu ay soxna. mais ci seen soxna itim duñ ci mën. ndax soxna yi dèjà dañuy liggéeyante. di takkantey xala. waaye am na ci xam ne ñu dañu am jabet ñii dañu am ah. hypertension artérielle. Hmm. xam nga feebar yooyu bu ko góor amee nekk mag. Hmm. âgé. Hmm. ay séritam dootuñu mën déedéet. daanaka dañuy xool ci seen soxna ña ca gën a nekk xale rek. ñooñu la ñuy mën a féeteel. mooy ci ñooñu la ñuy mën. ña ca des duñu mën. bu ko defee sax am na ci ñi nga xamante ne dañuy tuumaal ña ca des naan dañ leen liggéey wala ñu takk leen xale wala yu demee noonu. am na ci ñi ne dañu am ay problème comme li nga wax sànq ci stress bi problème stress bi bari na. Mhm. ndax bor yi Sénégal bari na bor de. <laughs> ak ñàkk xaalis banque banque day day day téye góor de banque. <laughs> day day yóbbu xel. banque ak say Lamine est-ce que banque des fois da jàpp na ñu ne daa télé fekk téléwul daa banque rek. banque <laughs> wàcce rek sa mbopp def métti. waaw banque ak jigéen ñi ak seen feet yu bari yii. waaw màggal gàmmu. tabaski korité ouverture des classes yaa ngi nii taxaw xam nga ni loolu góor bu ko yanu xam nga ñoo ngi jóge ci gàmm même pas un mois ci màggal ouverture des ngi nii taxaw tey ji bëri na ci parents d'élèves yi nga xamante ni nii may wax yow tey du ñu nelaw ndax yor nañu njaboot gi nga xamante ni yor nañu njaboot gi nga xamante ni ñoo ngi leen war a wutal ay fourniture des classes ak ouverture te événement yi jóge ci un mois bi ñaata événement moo fi dem nit ñi yoruñu léegi nag kooku nag tey jii nga nekk jigéen bi nga xamante ni tey jii bari na wax. bare na li muy lijjanti bari na li muy xool bare na li muy laaj. kooku nan ngay ànd ak moom ci say. ah xaw ma ko xel ma newu fi. xaw ma ko. am na ci ñoo xamante ni soxna si xel mee fi newul de. Mhm. waaw yooyu yëpp lu ñu dund la. sëñ Lamine tamit soxna yi dañuy dañuy kaas ndax fi mu toll nii tamit euh, bul fàtte ni ñun ñaa ci télé waaye am na ñuy commenter ci suuf. am na mhm. ñoo xamante ni seen wax mooy boroom kër yi nga xamante ni ñoom nelaw rek la ñu bëgg. Mhm. nelaw rek sëñ Lamine. Mhm. loolu tam am na ci am nga ci saafara wala amoo ci saafara. waaw nelaw day. micro bi. waaw dëgg la de am na ci xam te ne moom. Ah, loolu la ñu wax de nelaw nee borom nee laajal ma bu bëgg nelaw. waaw luy mbiram coono mhm. borom kër moom bu bëggee nelaw coono rek. Mhm. waaye nelaw moom ku ko def rek da nga wér wala sa xel dal. mais ñi seen xel dalul wéruñu ñoom mënuñoo nelaw. mais nelaw bu bëri itim nga am sa soxna. war a guddi jot nga war a ah, tëdd. ngay nelaw ngay nelaw. soxna si na koy njëkk di nelaw. muy njëkk nelaw waaw muy njëkk nelaw jigéen dangay ngay a tëdd teel a pare teel a laal teel a li teel a taal sa cuuraay teel a jiitu sa jëkkër wala boo nelawee sa sëñ bi ñëw nelaw nag nooy def sëñ bi bu sëñ bi ñëwee da la yee wala bu yeewoo nga fekk yow nga jiitu ko <laughs> mais jigéen dëgg buy sëy ci la ñu xamoon te mag ñu jëkk ña mhm. jigéen bu jullee timis gee mhm. day fëgg ay lalam mhm. fëgg laya lalam ba mu set taal cuuraayam yekk reeram waaj waaj mais léegi jigéen ñi dañuy toog di tiktok di seetaan ba trois heures du matin ku góor ki moom vingt deux heures mu wàcc ak liggéeyam sonn tëdd lu muy def day nelaw léegi loolu mooy suñu problème xool leen ko rek loolu la ñuy waaw. mais mais kaay tamit di nga fi gis ñoo xam ne. Ah, tamit ah, am am na soxna yoo xam ne tamit. waaw 9 ñu tëdd. waaw dëkk déedéet mais mais mais sëñ Lamine. waaw soxna jaar am na ñoo xam nekk ni 21h. ñoom jigéen ñi tëdd na. sëñ bi. Mm-hmm. mañ ca téléphone ba moom ah. itam. ba une heure du matin bu dikkee fekk la ngay nelaw. Mm-hmm. loolu tamit. yooyu tamit. waa bu dikkee bu dikkee nga yeewu yow bu dikkee nga yeewu tàngalal ko reer mu reer kala fekk bala muy nelaw nga nga def. sëñ Lamine reer na ba pare. reer na ba pare yow tëddi nga. waaw xaw ñooñu nga leen di consulter. man man ca saal ba yor téléphone am. waaw di wax jëm jëm suba. waaw ah loolu tam. man la ñu tëddi. waaw ah, loolu la Mariétou gis nga moom dégg nga lu mu ko wax. waaye waaye waaye sëñ Lamine sëñ ba tey li ma leex nii am ñoo xam loolu la ñuy taafoon toog seen bopp dañ maa takk xale fekk takkuñu leen. foofu loolu tam faa ñu ciy wax hmm. ndax tey nga ne waa dafa euh, soxna si kiiwal maa ngi ci dama am liggéey yu may liggéey yow yow tam bañ a ñëw loolu tam lan la mais xam nga am na ñuy jooy bañ a ñëw bi ci soxla li ma lay wax xam nga takk xala hmm. hmm. moom ci une semaine deux semaine trois semaine ba un mois mën nañ ko comprendre mais ana faju ji dangay dem nga faju ji loolu mooy dëgg ku ñu takk xala da ngay dem nga faju ji mais am ñoo xam te ni seen xalaa ngi dem deux ans wala trois ans mhm. mais loolu c'est pas normal parce que fajuwuñu fajuwuñu waaw fajuwuñu mënuma dara rek la wax noppi te duñu dem dañu am complexe góor ñu bëri dañu am complexe duñu faj surtout mhm. am na ñoo xam ne dañ leen a takk xala ci maneen anam gi mhm. xam nga nag buñ xasee ba toog bay wax rek teg loo xam ne daf leen a jariñ a jëriñ kon nañ am na ñoo xam ne dañ leen takk xala ci xel waaw waaw tax xale dafa bëri sëñ la mais man xel wallaay mm-hmm. nga taseeg soxna Ndey Jóob mu jongoma gisoo jongamaam gisoo dara mm-hmm. safu la dara mm-hmm. te yaa ko bëggoon wuti ko mais takkuñu la xale ci fee mais moroomu jigéenam def na loo xam ne kii boo taseeg moom day mel ni góor gu toog waaw jigéen du la sax dara da ngay dégg góor ji da ngay dégg soxna yi di wax loolu sama jëkkër def naa ko loo xam bu gisee jigéen day mel ni góor a ne ci wetam sëñ Lamin waaw loolu moom dëddale lay da xam nga dëddale ak ay noob dafa am xam nga jigéen ñi itim dañoo mën mënante ci côté gàllaaj jigéen ñëpp a yem

gën baaxante butéel am na jigéen ñoom dañu baax butéel de. <laughs> waaw dañu baax butéel butéel bi ñu yor am naa du ah, non non non ñoom butéel bu ñuul kukk lañ yor am na jigéen ñi xam te ni dañoo yor butéel bu ñuul. bu baax lañ am. ah bien sûr jigéen ñi foofu la ñu mën a am ah, daf ciy joué am jigéen ñoo xam te ñu jekku seen jëkkër dañ leen di noob parce que noob itam dañu xam ni suñu Sénégal la ñu nekk daf ci bokk dañuy def li nga xamante ni seen jëkkër daf leen di jox bopp mais bu dee ñi ngi sëy ñoom ñoom Sénégal lañ dëkk xam na réalité fi ne mais gëmuñu sëriñ. ah waaw ku ah, gëmul sëriñ nag wax dëgg yàlla nag gëmoo sëriñ. mais ki gën ñaari mbër yi bëri. Mm. kenn ki gëm sëriñ ki ci des gëmul sëriñ. Mm. te moo dàq bëri wala wala mu ëpp doole ñu daan kon lañ mm. koy wax moom moo seetaan. Eh. fii Sénégal la ku bëri ñu daanu sa kaw ku bëriwul ñu daanu sa kaw fii Sénégal la de. est-ce que sëñ Lamine. waaw eh, ci xala gi. seen mhm. mhm. yi ñuy gis. Mhm. di ko jox seen borom kër ñu koy lekk eh. hmm. wala ñu jël seen yi génn seen kanam di hmm. ko def ci soow hmm. wala genre yooyu yooyu tamit lan nga ciy wax xale yu jigéen waaw loolu moom bari na ndax mooy yii ngay dégg ñuy wax rek yooyu dafay indi ay télé indi ay feebar indi yu bëri indi ay infection mhm. indi ay jàngoro mhm. parce que góor ñee ngi ci biir kër yi mhm. mais liggéey yu metti lañ leen liggéey ah, ndax xam nga lépp rek suñu mbokk sëriñ see koy def dañu waxante dëgg rek ndax am na ci li xamante ni ñun ñëpp xam nañ ko sëriñ si moom dañuy déggoo ñun jigéen ñi naan xanaa xanaa kii dafa raxas jox ko waaw waaw xam nga luy baatu raxas jox ko ñun ñëpp dégg nañ ko dëgg la mais ki nga xamante ni dafa jël say say say microbe jël say salté jël sa jël sa sexe raxas ko ba mu set jël ko def ko ci lekk di ko jox sa jëkkër pour nopp ko. loolu baax baaxul góor ñu bëri ñoo ngi am méttiitu biir. Eh, góor ñu bëri ñoo ngi am ñam yi xamante ni reesul ci seen biir. ba jural leen tële. ba mu jural leen ay tële jural leen tële jël sax julli jaamu yàlla leen tële. waaw ah, xam nga ñoom daf leen koy jaral rek xam nga xam nga moom alxuraan moom. am na mm-hmm. euh, alxuraan moom lu baax rek moo ci nekk. Mm-hmm. alxuraan amul lu bon. déedéet mais tey jii bu fekkee da dem ci sëriñ bi xam te ne dafa ñeme yàlla. Mm-hmm. ci fétiche lay liggéey ci xërëm lay liggéey ci sobe lay liggéey. day jël ay dem cabine nit di ko loo sa jëkkër xam mhm. loolu itam doy na waar te loolu mhm. bëri fi ah la te mooy nopp yooyu dégg ni góor bu ko lekk bu fanaanee day dee allahu samadu waaye itam sëñ Lamine kon góor ñi man fi waxee mooy mooy kon góor ñi tam war nañ am ñoom tamit contre attaque boo xamante ni nag xanaa ñoom tam lu ñëw ñoom i tamit ñu jël seen butéel euh, naan ci waaw mais xam nga fii Sénégal la mhm. comme ni ñu ko waxee am nañu gëm am nañu gëmut dëgg la loo gis si àddina am nañu ko gëm am nañu ko gëmut am ñoom te ni ñoom ay affaire u sëriñ affaire u wujje affaire u takkante xala defante ay rivalité defante lu bon dañ ko donn ci seen i maam seen yaay wujje la mën <laughs> jëkkër bu ñu am dañuy wujje lu ñu am ñoom seen àdduna yëpp tànk amuñu jëkkër bu leen jox bopp jublu leen ñu naan man la man la féetee du loolu doy na waar xejj xejj xejj du noonu xeej du xeej du mystique moo la ko war a may normalement jëf ak liggéey bu baax moo la ko war a may am man dama moo mhm. ndax nga xam ne seen jëkkër di ko sotti jël seen wujju di ko sot ndox bu tàng mhm. jël dagg seeni awra jëkkër ndax fiir mhm. loolu lépp duñ ci wax mhm. loolu lépp ay kaala yoo xam ne tamit ci fiir la comme lii rek comme li ñuy def rek mystique boobu te man lii sax man li may wax nii man moom man pour man moo gën a grave soo de sa wujju wala soo fekk sa jëkkër parce que takk na ñaareel nga dem sotti ko ndox mu tàng wala jël doomi jàmbur sa doomi wujju waaw li koy yooyu li koy faral daal ne mooy lii sëñ Lamine nga eh, sa borom kër kii nga dem takk ko xala sëñ Lamine dindi xala ga nga nekkoon léelu ciy pexe mm-hmm. rek mujj koo def yii nii léegi mm-hmm. léegi ma doon laajte tamit sañ Lamine mm-hmm. euh, comme dama dégg ne ñi nekk stade comme bor ñi joué nawetaan en général da ngay gis dañuy def am ay gàllaaj yoo xam ne comme takk xalal lay nekk ah. parce que yow bu ñu jàppee sa yaram yëpp ah. yow yow physiquement mënoo mais boo demee tamit amaana xaw ma nag. ndax mhm. loolu am na mais boo demee sa kër est-ce que loolu tamit du jàpp say say say cër ci biir. Mhm. waaw xam nga ñi nga xamante ne dañuy def lu mel ne làmb. Mhm. ñi def sport de combat yi. ñi def làmb ñi def bëri ñi def nawetaan yi. liggéey bu bon bu nekk dañ koy defante. dañ koy def ci entraîneur yi. dañ koy def ci joueur yi. dañ koy def ci staff yi. fii Sénégal sax fii liggéeyante bi dafa bari ah. ci côté yëpp. bépp activité de développement. sëf bi dafa bari. dëgg la. nob bi dafa bari xeexante bi dafa bari fii ci biir tele yii sax dafa bari xeexante biir média wu Sénégal sax télé yu yii dañuy xeexante da ngay gis ki animatrice wala ani journaliste bi nga xamante ni diw neexu ko ñuy uh-huh. defante yu bon uh-huh. di yàqante di jëfante yu bon uh-huh. xam nga sëf yooyu ñuy sëf nit gis nga nit boo jëlee turam nga dagg sa xaatim nga bind turu turam bind turu ndayam bind turu nga sëf ko yëkkati lu diis teg ci kawam kooku takk nga ko xala hmm. kooku gëm li nga wax bu demee këram day nelaw rek du xam sax lu ko lu ko te peut-être ngi nekk sa yéen a bokk entreprise bi ngeen di liggéey wala yéen a bokk bureau bi ngeen di liggéey hmm, hmm. am na ci liggéey ko defee ci koy def mbalit lañ koy def comme liñ doon wax sànq da ngay am xet rek xetu bututu jën rek ngay xëy voilà am na ci liggéey yi nga xamante ni ci armeel lañ koy def da ngay mën a néew am na ci borom kër yi xam te ni tekkeetuñ dara seen kër comme néew amuñu fa kàddu amatuñ fa wax amatuñ fa dara jigéen a yor kër gi moo yor kàddu gi mooy doxal mm-hmm. lu mu wax loolu la ji jigéen boobu lu mu wax loolu borom kër gi laajal madame ah laajal madame ah lu madame wax ah, <laughs> laajal madame ba xam ah <laughs> mais nag mënuñu dara de la majorité gis nga góor yi amul kaddu mënuñu dara de laajal waaw loolu la nag ah. góor ñi góor <laughs> eh. gis nga ah, góor bu mat sëkk góor am mm. kaddu ci këram di def la muy def ci biir néegam mat ko sëkk kër gi moo kaddu gi moo ko yor de mais góor gu nekk ci biir kër laa wax mun la laajal madame ah. xaaral madame ñëw. ah xoolaat nañ ko mun nañu ubbiwaale ligne bi. nañ ko xoolaat ba ci biir mais ko seetlu ba ci biir góor góor gu am kàddu. yaa quelque ah, ah, chose waaw yaa quelque chose. waaw góor da mat góor góor gu mat góor dëgg. mooy ki nga xamante ni dafay def fulla def fayda. dëgg la waaw fa mu war a fa mu war a faj fa bu mu gàccee ci biir néeg bi day dagg bu mu gàccee yi waaw. day dagg bu mu gàccee yi bu yeewoo suba ganaar gu gën a mag ci dëkk bi ñu toggal ko mais nga xam ne nii jigéen janeen ji mënulu ko dara. nañ ko jigéen ñi waaw sëñ lay xam nga bëgg kàddu googu soxna mère lancé waale léegi ñu ñu ñu ko ndax ñooñu tamit ñi si biti mënuñoo ñàkk di ñëw di laaj am ñu laaj sëñ <laughs> ah, léegi léegi nii moom mën nga mën nga mën nga dugg nii ci 88 628 19 07 ah beneen numéro bi nga xamante ne moom mooy orange bi boobu moom ko ku ko soxla mhm. mën nga ko ci woo léegi nii insha allahu rabbi non buñ émission bi jeexee mhm. waxtaan ak moom bu ko defee nag sëñ Lamine dina la jox yeneen ak yeneen yoo xamante ne tubaarkaala macha soxna Mbène. Mm-hmm. waaw xam nga xam nga sëñ Lamine. Mm-hmm. xam nga comme ni nga ko waxee sànq. Mm-hmm. bëgg kàddu tamit. bëgg may borom kër gi. wooye naa sama bopp et dafay tax léegi lu ñu góor ñi. lu ne la uti. lu nekk lañuy uti. di ko naan. te loolu aussi dafa indi inconvénient yu bari. léew yooyu da koy defar am da nga ciy jaay wala tamit. Mm-hmm. waaw xam nga ak tam est-ce que boo koy est-ce que yi nga xam ne yaa ngi koy mm-hmm. defar. Mm-hmm. di ko jaay góor ñi. pour ñu mën a sentir seen bopp. est que tamit ci norme yi mu tege baax na ba nga xam ne du indi yeneen inconvénient وهم غنين مم أي تعلب لين كنيو خال خمني صح أم خمني أي تعلب لين تجي بير القرآن لبنت تبين رح يعلم وقت القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين لا ريتوا هاش أنا متصبح المتشيل ما نم لب من تبير القرآن تجي لب لين يلقي رك القرآن القرآن لبنت تبير القرآن كين جنكو tëleeg yoom ak jafe-jafe mm-hmm. lépp ngi ci biir mm-hmm. alxuraan te man lépp lu ma lay faj wala ma la koy defal ci alxuraan laa koy teg mm-hmm. ndax man lu génn yàlla génn yenente bi génn xasiida sëñ tubaa yii man aw ma ci yàq aw ma ci defar man ci alxuraan rek laay faj ci alxuraan laay liggéey ndax turu yàlla laa yor taalibe laa nitu daara laa Euh, yàlla dogal na nag man sama cabinet mhm. ku ma xam sax xam ni man ci loolu laa gën a spécialisé wu mhm. ci wàllu faj ci wàllu dooleeg nguuraak wàllu kàttanu sëy mhm. dañ koy faj ci turu yàlla dañ koy faj ci alxuraan waaye bala ma koy faj nit très souvent comme ni ma dama koy xool ba pare te li ñuy joxe itam bio la ñun ci bio naturel rek la ñuy faj. Mhm. alxuraan alxuraan bi ñu koy fajit. Mhm. am na ci waaye mhm. am na ci li xam te ni wàllu wolof la. gàncax gàncax la. mooy bio. muy affaire bio maanaam du comprimer du nekk lu am toxique. du nekk lu am te dafa am chimique. ndax toxique ak chimique ñun jotewuñu ci sax déjà. te ñi ëpp ci sénégalais yi li ñuy faral di indil leen seen télé yi nga gis nii. pour bëgg waaw góor. mooy viagra yi ñuy jël ak comprimé yi ñuy faral di naan. ak compris ak brasse yi jëlee ci dëkku Côte yi. loo xam ne xamoo ni ko defaree mhm. ak dëkku importé yi nga xam ne kenn xamul nuñ ko defaree. Mhm. xamoo graisse mbaam xuux la ñu jël. Mhm. xamoo graisse fas la ñu jël. xamoo graisse xaj la ñu jël. di ko jox nit ñi ñu koy naan te yooyu day indi ay problème mm-hmm. day indi ay intoxication digestive nit booy faju da ngay faju ci lu dagan mm-hmm. faju ci diine faju ci l'islam faju ci alxuraan xool ku ragal yàlla garab gi mu lay joxit mu nekk li xamante ni amul toxique amul chimique mm-hmm. jëlul li xamante ni affaire fétiche wala xërëm wala affaire lu xamante ni yàlla gërëmu ko ay deretu am am na ñuy fajoo deretu xaj wala gereesu xaj pour bëgg am ngóora mais xam nga loolu itam nañ ko seetaat loolu du dune ngi noonu waaw garab yi man dama ci conseillé rek bépp góor. Mhm. wala bépp nit. nga xamante ni yaa ngi faju mhm. na nga fajoo ci lu dagan. na nga faju mhm. li nga xamante ni yàlla gërëmu ko. yenent bi gërëmu ko. fajuwoo ci diine fajuwoo ci lislaam loolu moom nekkul li nga xamante ni daal li gën la ci nit ndax tout le temps dafay am ay effet secondaire retour yi ngi ci am tôt ou day nekk ay retour yoo xamante ni dafay am lu négatif ndax comme ni ma ko waxee sànq ki nga xamante ni yow booy faju da ngay dem wuti gereesu xaj wala graisse lu nga xamante ni mbaam xuux wala li nga xamante ni lislaam waru ko sax lekk dañ ko sib nga di ko jëfandikoo mhm. pour fajoo ko pour nga am ngóora loolu dara jaru ko ci àddina demal nga seeti docteur wala nga seeti sëriñ bi nga xamante ni yàlla may na ko ci mu jàng ko mu xam ko parce que ñun ci biir ci sunu biir mhm. dafa am ku ci nekk loo spécialisé wu dafa am ku ci nekk loo mën dañuy wax sax maa mën mais kon mënul lépp yàlla rek moo mën lépp yaasal jalaal wal ikram yàlla rek moo mën lépp mais ci ñun ñi itam kenn ku ci nekk dafa di jël responsabilité responsabilité di wax li nga mën di wax lii sa domaine de compétence mais sëriñ bi nga xamante ni lu ne nga engagé ko lu ne nga ni yaa ko mën itam loolu amul sëriñ da ngay am looy mën spécialisé wu ci lii ñëpp xam ne ci lii nga nekk man de sëriñ Lamine Barafal depuis 2002 mangi ngi ci média di feeñ ci mhm. télé mais j'ai resté toujours constant ci sama démarche deug la dama gëm li ma nekk mhm. respecté ko am ci fierté nak mhm. ndax lu ci nit di am rek am naa ko ci fu ci nit di dem rek man dem naa ko ci lu ci nit di tek rek tek naa ko ci parce que man awma ci complexe mais doxal ak jubal bi ak deugal bi rek sama cabinet médical nek Guédiawaye arrêt Double Less ñooy seetaan ñëpp xam nañ parce que man dama gëm li ma nekk te dama ci tok ci lima nek rek lay wax te lima xam rek lay wax duma wax luma xamul duma wax luma mënul ci fat la nek te j'assume loolu la ma yàlla nattoo mm-hmm. ku nekk ak na loo bëggoon sax sunu borom yóbbu na la ci loolu mën nag ci lii laa nekk te j'assume que li ma yàlla xam-xam bi ma yàlla jox yàlla na ma yàlla may doole kattan ba ma ci def lu baax mm-hmm. maa ngi waat ci rasulullahi musuma cee def lu bon wallaahi xam nañ loolu Fall ci weeru gàmmu gi musuma cee def lu bon te bëgguma ci def lu bon araam wallaahi waaw bëgguma def lu bon moom mm-hmm. lépp lu bon moom bëgguma ko def aa mi ngi noonu léegi sëñ Lamine ñuy ñëwee na balaa ñuy euh, waaj yëkkati jotaay bi mooy xala wax nañ fi léegi xala ñu wax nañ ko mais ndax xala bu baax am na wala déet waaw soxna si maam Bousso. Mhm. soxna xala xala moom am na am na bu baax. Mhm. xala am na bu bon. xala bu bon bi wax nañ ko. muy mhm. ki xamante ni exemple bi ci gën a siiw. nga am sa ñaari soxna. di mën fii doo mën fee. booboo ci gën a mën a siiw. xala bi nga xamante ni mooy bu naturel bi mooy ki xam dafa am ja dafa am soxna su bees suñ ko may. ci benn un mois deux semaines mënul dara ci soxnaam ñu réparé. loolu panne la bu ñu mën a réparé rapidement. ngeen baal ma. ngeen ñu mën a réparé rek rapidement. mais li nga xamante ni itam moom lañu gis si am na xala bu baax. Mhm. ndax tey jii sunu mag ñu jëkk ñu mhm. dañ koy raañ faral di def. Mhm. ci seen ay njaboot. maanaam seen ay doom dañ leen di takk xala. mag ñu jëkk ña dañ ko daan def. ndax da boo amee sa doom bu jigéen. nga def kër liggéey. bi xamante ni bépp góor du mën a egg ci moom loolu xalal waaw loolu dama wax. loolu wax nañ ko sànq loolu xale la ah, kon loolu bu baax la. xam ma léeg-léeg damay gis ñu ne xale boo ko takkalee fas nangam ku ko tiim dangay tële. loolu dañ koy def man dafa am fas yi dafa am dafa am ay ñaan yu ma lay defal. Uh-huh. mën na nekk fas mën na nekk téere mën na nekk lu ñu lay saafara mën na nekk loo naan. muy atturu yàlla buñ la bindal. Uh-huh. doo doo mën a doo kenn du mën a egg ci xale ay xale bi kenn du mën a egg ci yow. sëñ Lamine jamono jii xale yi jigéen ñi seen yaay nelawatuñ ba yaandoor sëñ Lamine kenn tëddatul euh, di xalaat te xalaatoo sa loolu loolu loolu aada la loolu aada la loolu diine maye na ko lislaam maye na ko bu baax sax loolu lislaam da ko maye mhm. nit ku nekk da nga war a aar sa njaboot da nga war a am na ci ñi xam am na maman yi xam te ni seen ay doom fu leen neex la ñuy dem wallaay benn góor mënul egg ci ñoom waaw waaw ku yàlla bind sëñ Lamine yooyu dañ koy def yow dañ koy def bu baax a baax kon loolu itam kon xalaat la mais xalaat bu baax la mais kooku dañ koy dindi ci jouru mariage am mhm. jouru mariage dañ koy dindi waa léegi sëñ Lamine loolu bu dee yow <laughs> bu dee yow <laughs> yaa ko def sëñ Lamine yaa nga Europe xale ba mu nga Ndakaaru njaay ñu war koo takk ba sëñ Lamine loolu koy dindi loolu loolu xam-xam la loolu imaam yi sax mun nañ ko dindi imaam yu bëri ci jàkka yi dañ koy dindi am na ci li nga xamante ni xutbaa koy dindi xutba xam nga buñ la mayee borom kër waaw buñ la mayee borom kër bu ñu toggee xutba day toj xutbaa koy toj ba moo koy dindi tànk que ñu jël turu kiñ la mayee dul sa turu nday jël sa turu nday waaw ki la lew daal ki la lew ñu toog xutba ko mais kenn du la jàkka ji dañ na kenn du la violé kenn du la agressé waaw am na bàjjan yi nekk ci biir dëkk bi jigéen ñi bëre bu ñu leen di war mhm. bu ñu mayee soxna ñu ñu leen di ñu leen def cëtal mhm. bàjjan yi am nañu am nañ secret yi mhm. am nañ secret yi am na ci xam te ni c'est traditionnel dañ lay fat am na lu ñuy dindi ci yow fatt la loolu moom kenn du ko loolu bàjjan yi jigéen ñu bari mën nañ ko dindi mooy ñuy dagg soccet mm-hmm. mais am na ci loo xam te ni imaam yi sëriñ si su mel nañ man bi lañ koy def dañ koy dindee xutba koy dindee mm-hmm. foo mën a nekk sax bu téléphone sax buñ la xutbaalee mu daj xutba la turu yàlla la alxuraan la mm-hmm. loolu da koy dindi donte nag alxuraan mën na ko def itam ndax am na xale yu baax am na ci góor ñi nga xamante ne tey jii nañ ma baal am nañu seeni soxna mais jigéen ñooñu dañuy taxawaal am na ci góor ñi xamante ne dañuy def dañuy takk xala seeni soxna. Mhm. dañuy def li nga xamante ni. keneen du leen tiim. góor bu leen ti góor bu góor bu doxaan seen jabar boo séq ak ñoom da ngay da yàqu sa awra dana mel na banaana bu nëpp day yàqu si fini waaw waaw léegi nag nañu waxante dëgg. boobu xala loolu xala baax na wala baax na. baax na kay bu kay baax na <laughs> waaw. parce que góor ñi dañ ko soxla parce que ñaari yëpp aussi ñaari ñaari ngi fi wax la ndaxte am na góor góor yoo xam ne hmm. waaw day hmm. hmm. na waar am na ci góor ñi xam te ne dañuy def acharnement ci jabaru jàmbur am jëkkër ñun la jabaru jàmbur jàmbur ca la wala boog euh, danga da nga am jëkkër dama am jabar xam nga loolu itam dafa bari ci dëkk bi man am na ci ñi nga xamante dañuy ñëw ni ma sëñ Baara defal ma li nga xam ni sama jabar ku ko ku egg ci moom nga yàqu mais tam am na tam sama boroom kër. di wër di taxawaalu rek sëñ Ba. waaw loolu loolu itam ci xale yu. xale yu baax la baax la la day indi góor goo xam tam boobu tam dara ko def. dafi am. waaw moom tam am na ñoo xam dañ koy def seen doom. Mm-hmm. dañu am seen doom bu jigéen mm-hmm. def ko ko. dëgg la am na ñu xam te ne dañuy tukki. Mm-hmm. dem nañu Europe. def dara seen jabar. Mhm. seen jabar kenn mënatu xelam sax dootul lekk ci góor. ndeysaan xelam sax dootul lekk ci góor. yooyu moom xalaw yu baax. xel xal bi xel bi si jigéen xelam sax dootul nekk ci góor. day dem dañu dafay mel ne lu tiit bu gisee góor day mel ne fitam dafa dem. Mhm. bu jëkkëram ñëwoon ci moom day mel ne jànq la jël te day am ñaari doom ba ñetti doom. Mhm. mais tant que jëkkëram ñëwul ci moom xelam dootul ñëwaat ci lu ni mel. lépp ngi ci biir. lépp ngi ci biir euh, léegi la ñu mën a xàmmee nag xala ak ak yoom laataa ñuy ñuy ñuy yëkkati. waaw parce que xala. Mm. boo ko déggee baat bi comme ni ñu ko waxee mm-hmm. loolu mystique la mm-hmm. xala moom baatin la mystique la mm-hmm. xam-xam bu ñuul la wala xam-xam la bi nga xamante ni ay aaya la wala ay li nga xamante ni dañ la koy def pour sëf la wala kort la wala noob la wala naawtal la wala xabtal la loolu yëpp ci wàllu baatin la loolu côté mystique la mais nag ki ne moom dafa yoom moy ki nga xamante dafa am faiblesse sexuelle wala mu am impuissance sexuelle wala mu am éjaculation précoce amna ci sax légui li nga xamante ni neexul wax moy ñi nga xamante ni borom awra yu tuuti yu ndaw yi ñoo itim ci problème yi lañu bok bokk lañ leen war a am na ñoo xam te ñoo ngeeg seen problème te ci télé bi lañu sétal seetaan lu ndaw la am ñen ñi nattu la dañ ko judduwaale am na ci nga xamante ni nag fooy seen bopp ak di utiliser ay drogue di utiliser ay excitant di utiliser ay tux di utiliser mandi ak ay effets secondaires. dalen koy def ak ay volet boobu mom déggoon naa sa ngeen def ci thème. di lépp def nañ ko volet yi ñi utiliser ci réew mi. Mhm. goor gu ko moytuwul ci yoon nga jëm. Mhm. yooyu nag. Mhm. lolu nak mom mo fi bari xalé goor yi ci bari dañoo yom ci bari drogue bee goor ñu bari dañu yom ndax drogue ak excitant parce que bokul ci nit. dëgg la drogue képp ku koy utiliser. tôt ou tard di nga faju sa ngóora. mënul nek ndax volet yi ngay jël nii. di wax ngeen ko fii dégg naa ngeen def ci thème. waaw daf lay xiir ci nga bëgg sëy muy góor muy jigéen. góor bu jël volet. da ngay xiir ci nga bëgg sëy mais gis nga boo ko jëlee ñaari yoon ñetti yoon fukk yoon ba sa organisme reconnaître uh-huh. da ngay yoom à vie. Oh. da ngay am soxna dootoo ci mën dara. bépp góor buy utiliser vole uh-huh. appal naa la de. Uh-huh. appal naa la quelques mois rek laa la may eggul at. sa sa awra dana mel na banaana bu nëpp comme ni ma ko waxee. Mm. dara dootoo ko mën ci mm-hmm. àddina. waaw te loolu itam. pour ñu réparer waat ko dafay laaj. dafay laaj temps bu muy jaaree. waaw fii ngay mujj nag ay viagra ngay jëlee ay aphrodisiaque ngay wër di naan. mu def la ay bopp yu métti. ngay miir di uhuh. def la ay feebar ngay këpp. Uhuh. ñii ngay dee ci hôtel di dee ci auberge yi ndax comprimé yi ngay yooyu am na jigéen ñoo xam ne dañu jonge jonge ju ëpp. waaw ba dañuy naan tey maa moomee damay def ba mu baax. Uhuh. suba bu demee ci ndey jóob dafa mën dara. ba jël Viagra yooyu jox la ko. Mhm. def ko ci attaay wala xaw ma sax lu ñu koy. def yooyu rek jox la nga am jóge yi dépasse attaay <laughs> naan nag léegi yow xamoo si dara nag yow ku góor bi boo ëllëgee loolu mën na la indil problème. Mhm. ah bien sûr. Mhm. am na jigéen ñoo ñoo yomloo seen borom kër <laughs> am na si jigéen nga xam te ne bu seen jëkkër yi ayee. ñoo nga gaar ba. waaw wallaahi ñoo nga ci tukulóor yi. <laughs> façon compromis bu ne bu ne lu ne ñu xool waaw la am ku leen di demal waaw dañu am ay seen mindaan yee leen di demal wala seen yaay leen demal seen sëriñ wala seen frère wala am na jigéen ñi xam te du ñu dem du ñu dem de mais xam nga léegi moom di lépp toj dañu xam ne dëgg fii lépp lañ fi wax diw lépp a toj voilà di lii moom day toj waaw waaye boo ngeen xam ne nag am na ci jigéen ñi xam te demuñu binduñu maasuñu borom kër gi naan sama sama soxna si demul fenn kii xamul dara demul fenn ah. eh, li mu xam na xool te fekk ni yow mënoo dara ci kër gi xoolaatal sa frigo borom kër yi xool leen frigo yi. jën yi jël congelé ko congelé yu yàgg. te mënu leen dara xool leen ka xam nga xamante ni ndax dañuy gis ne jigéen ñi ah sëñ Lamine sëñ Lamine eh, ndokk ma ko ndokk yàlla ba nga xamee ni nag mm. tubaarkaala waxtaan wi di fii ndax mhm. fi mu toll nii moom mhm. ah, waxtu wi macha allah dafa dafa dafa mët sëkk ndax sëriñ a ngi waaj a ñëw léegi mhm. daal di def émission kafe gi waaye lii am solo am solo loolu sëñ mi ndax dañ cee jàng tey njàng mi moom moo ci am am solo macha allah ndax tey am na borom kër yoo xam ne ñu ngi toog ci seen euh, seen kër yàkkamte nañ émission bi jeex ba ñu woo sëñ Lamine ndax xam nañ ni kat ah ñu ngee ak jafe-jafe yoo xam ne amaana tey lii ñuy waxtaane dal na leen dañuy bàyyi nga joxe numéro bi ak euh, ñi nga xamante ni bëgg nañ laa seet fan la ñuy ñëw pour seet si foofu sëñ Lamine waaw jërëjëf <laughs> jërëjëf soxna Mame Bousso <laughs> maa ngi leen di sant bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal pour ñu waxtaanee ci rek xam-xam <laughs> mm-hmm. waaye xam-xam comme ni nga ko ubbee sànq lu mm-hmm. naqadee waxtaanee la ci réew mi ñu ngi jégalu ñëpp mm-hmm. waaw xëy na nag yéen suñuy sœur ngeen suñuy soxna ngeen suñuy jigéen ngeen yéen ñi ñëpp ku ci nekk am na ci yéen lu ma yàlla boole ak moom ndax yàgg nañu ci média yàgg ak yéen bokk ak yéen ay teranga ak lu baax te Serigne Touba rek boole ñu ah kon ñoo ngi leen di sant bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal ubbi nañu ñun suñuy bunt jox nañ leen loxo partenariat jox nañ leen loxo collaborateur thème boo leen yëkkati ngeen xalaat ne sëñ Lamine Bara Fall mii kat war na ci am xalaat sax boo leen ma woowee man dinaa ñëw incha allahu rabbi yitte bu ma mënti jàppe ci cabinet ba dinaa ko dagg ànd ak yéen ndax dans l'objectif du bien faire ndax yéen askan bi ngeen fi nekkal Sénégal ngeen fi nekkal te ñu nit ñoo bokk mission kon yàlla nañ ko yàlla boole ñu àndee ko bu baax man nag maa ngi nekk Géejawaay arrêt Dubalas fa la cabinet bi nekk du n'importe comment lay liggéeyee képp ku soxla nak ma envoyer message vocal whatsapp mhm. ci sama numéro bii ñu affiché ci télé bi di 77 169 45 45 ku bayil sa message vocal dina la déglu mhm. li nga ma wax bu ma ko ba mu doyma ma mhm. dinaa la ci indil leral suma ko mënee dina ko def suma ko mënul dina la mënuma ndax dafa bëri ci yi ma nekk te bëriwuma temps maa ngi jégalu nag ci kàddu boobu kenn képp ku ma soxla ci whatsapp laay liggéey jarul sax woote bàyyil ma vocal rek wax li nga bëgg dinaa la tontu man noonu laay liggéey am na nag sama numéro secrétaire fi xam foofu moom am na protocole am na ticket de consultation numéro secrétaire bi di 77 160 93 93 nit ñi ci ëpp nag 160 93 93 pour am ah, ah, kon amul amul

ba mu ni la man kat bàyyil naa ko vocal ba sonn kenn mhm. tontu. dinaa ko la vocal naa ko. vocal naa ko waaw danaa ko danaa tontu. voilà <laughs> vocal ku ma vocal rek wax vocal naa ko moom laay xaar. na ku ma vocal rek man dinaa. kon nag jéem a kon vocal leen. ma problème wax ma rek. a am. Mm-hmm. wala problème ndoxum siti laa am wala problème lii laa am. Mm-hmm. loo ma ci la tontu. ni la nii ak nii lay demee. incha allah bu soobee yàlla sëñ Lamine ñu kontaanoon lool wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Ah, tey tey xaar ak beneen thème incha allah. ñu daal di ñëw ànd ko ndax lii nag. Ah, partenariat la ndax bu la neexoon ah, làmb leneen yaa xool ba li ngeen doy la tubaarkaala yàlla boo ci am benn réccu réccu macha incha ndax ñun tamit njëriñu askan wi rek moom moo ñu fi tax a toog sëñ Lamine mhm. euh, lépp loo xamante ni tam war nañ ko di waxtaan muy jëm ci kër yi dafay baax mhm. ku mel ni yow ñu mën a toog di euh, laayante biir ak moom ndax lii thème bii bu ñu ko ti woon xam naa ne lott nañ lool ci wax ci lii lépp ci am tubaarkaal la mhm. kon nag euh, nuyoo moom dañ koy leb sa bàjjan soxna Mariétu soxna Ndey Jóob dañuy leb nuyoo bi rek ndax waxtu bi mën na sëkk muy noonu Adja sànq tey moom sëñ Lamine am na lum leen rajaxeel yéen célibataires yi waaye bu soobee yàlla di ngeen ko teg ci axe di jël kenn bu kenn demee ngeen jël keneen waaye en gros bi moom hmm. bu soobee yàlla di ngeen ko bàyyee mu ngi noonu fi ni jeex na ñu jox ñëpp euh, dig daje ah ba alxames waaw numéro yaa ngi nii waaw da ngeen di mm. bàyyi nag euh, kii ay jox leen ma numéro sëñ Lamine beek numéro yaa ngi noonu tubaarkàlla mm-hmm. euh, affiché wu ngeen ko woo foofu yéen ñëpp wala ngeen dox ba euh, arrêt dubalees ci cabinet sëñ Lamine Bara Fall fu ngeen ko laajte dinañ leen koon woon allah di jox ñëpp dig daje jaajëfal Baye Momar bu baax a baax Adja moo nekkoon ci régie ba ak Ousmane di jox ñëpp dig daje di wax jigéen ñëpp ay lingeer lañ ba beneen alxames incha allah say jikar tey bëgg ba di neex nay muñ te sax ci ndigal tey tontu tontu lu neex jigéen bu dee say jikar tey te sax fuuta kay togga kay ree